voilà ayca muy noona ñu amaat contentement lool euh, fa seene jàkkaarloo yéen tey euh, si seen émission Mode de Rire tamit di leen euh, ku nekk tamit fekk naa la fa toog ma ne la jàpp sama loxo dina laaj noo fanaane tamit di la ñaan tamit tournée bu antara bu macha allah voilà tey nag ñu amaat mbégte lool fa seene dara tey suñu suñu invité tey jóge tey Dakar macha allah ñu xam ko tay si si Wally Coly nekk benn jeune musicien musicien mais en même temps tamit nek ci walum théâtre théâtre bi voilà. kon euh, Wally bi def bi def loolu di nuy di la nuyu di di la wax tamit nga lii nuyoo nga waaw jaaral alliance la bégueuse fait des vidéos. Mhm. ma lay ziar bu baax a le nom c'est Wally Coly artiste hein, en même temps acteur théâtre. di bëggee gaale bi yëpp wax yàlla di am contentement bu rëy si invitation bi kontaan naa trop. voilà ñun tamit ñoo la gën a kontaan léegi waaye du ma def lu dul ñu ñu commencé émission bi voilà léegi wala sama première question mooy wala dañu la gis en même temps way da ngay way mais en même temps tamit dañu la gis wàllum théâtre théâtre bi mën waaw euh, mën naa la sant yàlla la ndax àdduna loo gis euh, rêve la. Hmm? te mun naa ne rêve bi pour mu mën a réaliser wu da ngay opté bu ko defee yàlla defal la ndam pour dire vrai maa ngi musique en même temps maa ngi si série théâtre yi nekk si yeneen activité te jàpp naa ne àdduna noonu la ndaxte lépp looy def rek bul jàpp benn côté ndaxte tey boo nee da ngay jàpp musique yem fa yàlla mun na dogal gàllankoor ñëw suba comme ça boo ko rek to am fenen fo jàpp mais pour man boo jàppee si musique bi en même temps théâtre Euh, yàlla mun na dogal am foo xamante ne dafay euh, baax benn jour moo taxit ma euh, jàpp musique bi en même temps di tourner série théâtre et mun bu baax a baax si d'après départ a am. voilà muy noonu noonu la ko képp ku ne si loo nekk da nga koy gëm da koy gëm am si yaakaar bu gis naa si yoon noonu parce que doon def musique musique mais musique jékki-jékki def musique en même temps nga jógee ba Casamance te ngeen baraw yenn sa mbokku. Casamance séeréer man Casamance ku fa nekk juddoo fa nekk wàllu musique ah xanaa mu ko de <laughs> xaw ma ko de bu dëgg dëgg léegi noo leen dëkkee Casamance di def wàllu musique da nga am idole boo rëy wala peut-être comprendre ma. waaw bien sûr dama am idole bu may roy mooy c'est-à-dire euh, Wally Ballago nekk euh, koo xamante ne wax dëgg yàlla mën naa ne euh, depuis le bas âge dama ko yàgg adoré mu nekk koo xamante ne il est trop admirable en moi mm. depuis may jàng école.

waaw mais mais mën naa ne Waly laa tuddu ndax ndaxte Abdoulaye laa tudd le mais mun naa ne tey tur Waly Coly bi dem na bu benn instant ñu bëri sax euh, dañu jàpp ne noonu laa tudd réellement. man nu nga tudd. waaw ba si sama famille ñi ma gën a proche sax léegi Waly lañ may wooyee. d'accord aywa liggéey noonu solo moo tax képp ko gis nga bëgg ko def ko comme idole kon dem teg ci dem te jeex ba jeex tàkk voilà mu ngi kon duñ def lu dul dem rési daal di ci jël publicité ñoo du nouveau pour vous faire rire du nouveau qui va vous permettre d'oublier le stress du nouveau qui va vous permettre d'exploser mais aussi et surtout qui va vous permettre de vous perdre dans l'appétit de la joie eh oui tout la bégayeuse tout le bambista une jeune fille pétrie de talent une jeune fille vraiment qui a le sens de l'humour qui va vous faire rire éperdument eh oui tout qui est sur les réseaux sociaux comme YouTube voilà muy noonu nag ah di amaat contentement bu loolu tamit ah ñu gis ñu ngi si message yi macha allah kontaan nañu lool tamit yéen ñëpp ku nekk ñu ngi leen nuyu di la ziar voilà Wally tey yaa ngi nekk si bi si musique bi nekk si te képp ku wax képp ku wax théâtre wax wàllum euh, rassemblement mhm. tey corona bi dem bëpp ñu doole tey suñu président ne tey loolu lépp tey da koy aaye voilà te yow loolu tey nan lay li def nan lay def tey. ah en tout cas Mister Koro fàtt nañu wax dëgg yàlla waaw uh, sant yàlla rek. Uh-huh. di ñaxtu gars yi rek encore une fois de plus. Hmm? coronavirus lu am la même su fekkee ba tey. am ñoo xamante ñoo amuñu góom-góom. Mhm. ba tey ñu ngi laam-laam est-ce que corona am na am déet. Mhm. mais li may euh, li may conseil gars yi rek mhm. kon nañ respecté affaire yi ndax déjà métti na lool si ñoom. foo tourné si dëkk bi policier di la dàkk di la loo xaalis takkal masque takkal masque métti na lool mais lenn rek mooy tax loolu noonu dañ si dëkk bi nañ respecté euh, consignes yi nga xamante ne gars yi joxe nañ ko ñu xam ne lii nii. Eh, fagaru moo gën faju dèjà moo gën si ñun buñ ko respecté rek yàlla mun na dogal lépp jeex ñu dellu si waat suñu activité. mun na la voilà te wax ma daal sax mais mm, masque bi ñu naan la sa cent francs la jar ne daal ko ñaan ñu kon nag lépp loo mën a gis rek lii santé avant tout kon nag comme ni ko président waxee ak ni ko. premier ministre waxee kon defee nañ ko def noonu voilà Wally suñu suñu question bu mujj mooy reetaan mooy tax nag dama mun waaye tey maa ngi gis tey xam xam man dèjà man dër wala waa dër ba yàqu xam nga loolu waa Sénégal tamit loolu xam nañ ko nag parce que képp ko la bëggee mooy jigéen jigéen bu def ñi nga xam tamit xam nam ñu ko xam ñu ko léeg-léeg noo ciy tey man tey en tant que l'actrice tey mëtër mëtër ba naan de genre théâtre théâtre yow loolu noo ko gisee mën naa ne sant yàlla di la féliciter bu baax a baax te mën naa ne sax suñu premier xamante par kii la woon à travers Ami Collé sama maa ngi koy siyaaroo parce que Ami Collé Wally borom international Euh, moo ma présenté jaara mu boole ñu ñun ñaar nga jàppee ma papa mm-hmm. euh, ba yàlla dogal ñu dem ñu am benn complexe boo xamante ne dafa fort mm-hmm. euh, nga may yónnee say vidéo sa première vidéo dama ko reetaan may bëgg a dee mais après je n'osais pas ko nga xamee ko si man nga xam ko si man quoi mm-hmm. ndaxte wax dëgg yàlla ni ngay dëree man pour dire vrai ma ko muñ ndax maa ngi fàttaliku mënu ma mënu ma koo bañ a tudd suñu benn tournage Miroir Pro c'était en Mboro maa ngi nuyu waa Mboor au passage ñoom ah. Mboor. gaa mm-hmm. hmm, ah. yu baax yi wax dëgg yàlla. Mm-hmm. Mm-hmm. ba ñu am foofu plaignance si benn restaurant c'était dans un restaurant. benn euh, ba gaa euh, ba rek restaurant bi woo kii ah. euh, dañu am moom benn plaignance. après ci la woo gendarmerie ba gendarmerie bi ñëwee gaare seen oto gars yi ñëw ak doole na commencé di wax après si nga commencé tontu nag ba pare gendarmerie na naan la eh tais-toi ba pare nga naan noppi

Lemina Lamzo Authentique Dad Balzo Alliance Thomas l'homme qui Eto Serigne Diallo wax dëgg yàlla Justin Bey bi ñoom Momo sama gaay yi Momo Manoké maa koy siyaar borom Fass aslem euh, ñoom Loos borom Gétto Khalil Wali sama doom day ñoom gaay yu baax wax dëgg yàlla ku lim juma ah, ku lim jum mais maa ngi nuyu ñëpp di la ne rek wax dëgg yàlla déggeen naa leen kontaan naa si yéen kontaan continué rek mère ah, maîtrise sa sàcc defeere amul graphie ah ñun tamit am nañ si yow tamit kontaan na bu baax a baax a baax baax loolu fekk tamit mu daañ invité suñu suñu invitation ñu doon tey kon bala ñoo tàggatoo nuyu day nuyu tey sa mag ju baax jooju ah, Seynabou May di nuyu Abi Kola Diop Mame Diarra Baral Lala Aïdara Adja tam séeréer yi buur séeréer buur Bourté maa ngi koy nuyu di nuyu Ablaye Ndiaye alias Dof maa ngi lu baax xam dama am benn nit boo xamante dafa ma nuyu ko au passage nit koo xamante dafa bokk si man mu tudd laay le chef hmm, le synapode de Wally Balago maa ngi koy nuyu bu baax a baax kooku dama ko bëgg ma bëgg kooku mënuma koo fàtte laay chef ñun tamit ñu ngi lay nuyu di leen ziar macha allah voilà mu ngi kon nag fi lañ def ko daal di daal di jaare ko tëg ak tëg suñu de di leen jox tamit dig ak suñu beneen invité dama dër ba yàqu day may comprendre. <laughs> bye bye.